mbokk internet Dakar net ñu ngi leen di nuy di am mbégte ak contentement ci ànd ak yéen ci waxtaan bu am solo bi ñu nar a amal ak euh, le président Lissa Faye di président de de l' association des édites et professionnels de la presse en ligne président ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay bu baax. président ban euh, lecture nga am ci euh, paysage journalisme paysage de la presse en ligne actuellement. lecture bi ma ci am mooy que ne en tout Euh, mi ngi dox comme ni mu waree et comme euh, paysage yëpp rek euh, dafa am dynamisme bu am solo boo xam ne remarqué nañ ko ci et loolu noonu mi ngi manifesté wu par organes yi nga xam te yu yees yu ñu créer la ak organes yi nga xam te ñoo fi yàgg ko di def ay liggéey bu mucc ayib maintenant nag presse bu ñu bëggee tëkkale presse en ligne ak leneen du mënta nekk presse en ligne presse en ligne la. et donc dafa nekk ay technique nekk loo xam te ne c'est conventionnel codifié mu am nu ñu ko war a defee ak vraiment lu mu laaj et donc ci wàllu presse en ligne bi yaakaar naa ne bëriwuñu en tout cas ay ñaxtu ñu ci war a mën a def bu dee ñu ngi xool site yi ñu war a xool waaw. président dañuy gis beaucoup de dérives euh, dans euh, dans le monde du journal. à ce niveau lan la ci appel def. appel li ci def bëri na ndaxte ñun euh, jafe-jafe dañ ko teel a gis teel a xam ne kat comme créer site yomb na créer chaîne YouTube yomb na il faut que ñu ñàkk euh, vraiment fexe ba nga xam te ne képp kuy créer site rek nga tënku ci ay ay charte yu leer euh, ba tax na novembre 2014 ñu def benn atelier boo xam ne c'est la régulation la presse en ligne c'est sur la régulation de la presse en ligne mettre en place benn charte boo xam ne ça concerne les journalistes de la presse en ligne biñ ko defee ñu xool ay ñaari at après ñu xool bureau bi xool xam ne li doyul euh, ñu gën a dàbbali def beneen atelier boo xam ne c'est sur les cahiers de charge ak euh, la labilisation la presse en ligne loolu noonu ba tax na en fait euh, ñu wax maanaam ku bëgg a créer presse en ligne ci yan tënku yan charte ngay tënku mooy maanaam euh, nga recruter trois journalistes au minimum mu am un directeur de publication koo xam ne dix ans d' expérience lay am un rédacteur en chef qui a sept ans d' expérience et un reporter au minimum et ñooñu boo leen recruter maanaam il faut que mun nga ñu nekk am ay contrat yoo xamante ne euh, c' est visé par l' inspection du travail. et it entreprise bi ngay créer mu nekk entreprise au normes de OHADA boo xamante ne maanaam day déposer bilan impôt et domaine chaque année et di am crise fiscale wala au moins en tout cas mu nekk en règle par rapport aux institutions fiscales et sociales donc euh, et puis loolu doyul ñu ñun xalaat ne comme euh, mbir mi mën na compliqué mën na doy waar ñu ne it nañ mettre en place benn structure boo xamante ne c'est un observatoire pour la qualité de la presse en ligne et loolu noonu article 177 dernier alinéa bi moo ko prévoir donc vraiment def nañ ay ñàkk yoo xamante ne ku bëgg a créer presse en ligne ci nga war a mën a tënku waaye nag xëy na nag euh, loolu noonu yëpp euh, mënuñu ko jëmal mënuñu ko doxal jamono ji ndax code bi moom dafa paan et lu tax mu paan mooy que ne maanaam euh, état bi du en tout cas jubagul ci taxawal ka ci jëmmal ka ci doxal ka ba tax na euh, ñun fi nekk nii mënuñu lu toog di ñaan vraiment musiba bañ a am ci dëkk bi jógee ci presse en ligne bi ndaxte saay su nekk da fi gis site boo xam ci ne wala benn chaine boo xam ci ne pour wut buzz rek dina fi def loo xam ne musiba en tout cas yaraanga dina am et it euh, ruuse ruus nit ñi nañu ruus dëgg dëgg dëgg wax nga ko léegi mu mel ni donc euh, presse en ligne am na ay charte yu ñu teg pour que ñu respecté ko. donc ñu gis fan yi ni am na benn journaliste euh, animatrice sax bu génn ci benn seen Diassigui TV génn di wax ay propos yu jéggi dayoo bon ñu bëri ñaawlu ko léegi appel ban taxawaay la am ci loolu xam nga appel euh, mënu benn taxawaay vraiment man bëgguma sax tudd ndaxte loolu noonu ñun waxtaane ko sax suñu suñuy kuréel muy bureau bi wala suñuy compte euh, suñu groupe whatsapp yeeg yooyu noonu ndaxte mënuñu ko considérer comme presse en ligne Euh, jamono ji moom ku jóg rek maanaam gàddu sa micro gàddu sa caméra wala sa benn téléphone ñoo taxaw nga ne kat euh, nangam TV ba tax na euh, li ñu fiy gis doy na waar et ko réglementé wul lii raam ci ñag ci ñag bi la jëm et donc dañuy ñaawlu lool noonu ndaxte dafa xotti war ma jigéen jigéen la waaye dafa xotti war ma jigéen et puis it yim ciy def ñaaw ba nga xam ci ne. man pour man mënuma ko considérer ni kii euh, animatrice la wala journaliste la journaliste moom xalaatuñu ko sax moom animatrice xëy na ndax te même animateurs yi duñu bëgg genre yu bokk ci seen euh, ci seen langue donc nag euh, wax dëgg fa yàlla loo xam ne lu ñu la gis nañu aussi it Jamra taxawaay bi mu ci am ñu koy rafetlu bu baax a baax a baax interpellé nañu ñu ni tontu nañ ko wax dëgg fa yàlla xamal ko ne kat ah ñun de lii concerné wuñu ndaxte ñun suñu wàllu bopp moom balaa ngay dugg appel déjà lu leer ngay wane et teg ci it am na ci loo xam ne ñun mënuñu ko reconnaître comme presse en ligne. à votre niveau est-ce que CNRA waru si am benn taxawaay. waaw lii mbir mi CNRA moo ko war a lijjanti mais CNRA jamono ji mu nekk nii euh, te ay teg sax mayu ko pour mu mën dem lijjanti les web TV ou les IP TV ndaxte loolu noonu maanaam ci code bu yees bi ci la nekk te code bu yees bi mi ngi taxawal li ñuy wax ARCA. dëgg la ba fi ba ba ñuy taxawal arca CNRA mooy doxal mais ba léegi ni CNRA dafa tënku ci wàllu droit ci wàllu euh, disposition légale pour maanaam mën a légiférer surtout tout ce qui est presse en ligne sur tout ce qui est web TV sur tout ce qui et donc jamono jii nii euh, li mu ci mënoon a def mooy maanaam préparer li nga xam ne mooy cahier de charge yi ak euh, convention yi mu war a signé les organes de presse. Euh, audiovisuel que ce soit en ligne ou traditionnel pour maanaam ñooñu tënku ci yenn euh, disposition yi surtout pour éviter yenn contenu yi nga xam te ne di yàq réew wala muy yàq société bi wala vraiment muy indi jafe-jafe ci société bi. Euh, président presse yi dem di jël ay images yu si ay images yu nit ay corps man noonu lañ ko mën a waxee si yenn cimetières yi loolu ban gis-gis ngeen jàmm. bon di ko ñaawlu ndaxte ku ci nekk bu doon sa waajur wala muy sa mbokk doo bëgg maanaam ñu ñëw euh, di ko fekk ba ci këru dëgg kër gu mujj gi vraiment di ko di ko wane ci yenn anam yoo xam ne rafetul ndaxte yaakaar naa ne nit ki loo bëgg bëgg buzz loo bëgg bëgg bëgg nit ñi ñëw xool sa site wala di ko cliquer am na loo xam ne woon nga xa daw et yaakaar naa ne mbir mi nekkatul sax maanaam ay éthique ay nekkatul sax maanaam affaire code de la presse wala wala yenn benn texte journalisme mais mbir mi bon sens la et surtout aussi nga xam ne lii bëggoo ko def sa waajur mu bëgg ko def waajur keneen bu ko ko def sa raq bu ko def raqu keneen et vraiment nit ñi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax xam ne yenn image yi même bu dee dina indi clic yi li muy wàññ sa organe ak yow mi ki jiitee moo ëpp maanaam que après clic yi mu lay may ndaxte clic yooyu noonu pour benn jour lay doon wala pour benn mois boo ci paree pare nga ci après nit ñi ñu am fu ñu lay euh, étiqueté fu ñu lay teg et pour nga jóge fa dina jafe loolu. président gannaaw yéen a njaboote presse en ligne est-ce que donc yéen jëlu leen ci benn mesure. Euh, loolu yaakaar naa amul mesure euh, boo xam te ne war nañu ko ci jël particulièrement en tout cas maa ngi fàttaliku rek bi mu amee incendie ba fële ci Daaka Medina Gounass bi. gisoon nañu ay images yu atroce yu doy waar yoo xamante ne ay nit yoo xamante ne lakk bi moo leen ko defoon et gis nga boobu noonu ba mu amee ñun ñëpp jotoon nañ ci image yi et ci biir appel dañu yónnee woon message vraiment ñaan nit ñi ñu bañ génnee genre image yooyu noonu et wax dëgg fa yàlla euh, boobu kenn génnewu ko et boobu ba léegi nii en tout cas ñi bokk appel dañuy daw di moytu parce que xam nañ que ne appel du far kenn ci yenn euh, agissement yi ak ci yenn comportement yi ba tax na Euh, ku ko def it dañ ci wetu waaw. Président depuis plusieurs années on est en attente de l'application du code de la presse euh, fu ngeen ci toll ak état bi. waaw loolu moom jamono ji état bi moo ci des ndaxte application bi am na ci yenn disposition yoo xam te ne pare na pour ñu appliquer ko parce que euh, yooyu soxlawul li ñuy wax ay texte d'application mais texte d'application yi moom mi ngi des ci état bi au niveau du secrétariat général du gouvernement au niveau de la présidence au niveau de l'Assemblée nationale parce que lii ay décret la président moo ko war a signé lii ay ay euh, kii la ay loi la yoo xam ne assemblée moo ko war a voté jot nañu xanaa la session parlementaire bi di jeex xëy na ndax au moins benn wala ñaari loi dina jàll mu di arca bi ak euh, le fonds d'appui aux entreprises de presse ñi ngi xaar ñi ngi xaar daal ndax dee dee nañu ko waaye wóoraguñu ndax yàgg nañu dee lu mel noonu far du mujj fenn waaye ñi ngi xaar am yaakaar. ban lancé. message may lancé mooy euh, vraiment ñu continuer jéem a def liggéey bu rafet te xam ne presse moom dafa war a jàpp ci développement réew dafa war a vraiment jàpp ci loo xam ne dafay suqali réew et surtout yaraat population bi mais jamono jii ni vocation éducation boobu noonu dafa jéggi dafa dañ ko pousse fële andi divertissement bi indi buzz bi et loolu noonu maanaam dafay abrutir xale yi di yàq population et balaa nga ci xam dara balaa ñuy gis njeexital yi ñu xaar ba ay at ci kanam tuuti et boobaa dinañ xam ne kat lii ñoo ko jiwoon et malheureusement ñoo koy góob et boobaa ñun ñëpp dañ ci am responsabilité bu mag et lu jar a xel la vraiment par rapport ak suñu responsabilité éducation bi ñu war a def pour population bi. et surtout message bi ñuy génne mu nekk message bu mën a am njëriñ. Merci beaucoup, Président, d'avoir accepté cette interview et merci également à l'équipe technique de Dakarnet ainsi que les internautes. Merci.